jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan te ak mbégte comme ni ñu leen koy defaree saa su ne ñu ngi fii Parcelles Assainies unité 7 open press Obeuli Obeuli na bu ñu ko waxee xel ñu bari dañuy xam ne mooy Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye Joof Yoor muy doomu séeréer mu ngi noonu boo xoolee kii baabu ngomay baayam mu noo moo nekk batteur bi tey moom moo yëngal ba mu yëngu mbayam lum moo nekk ci wàllu way da leen a may ambiance may leen cosaan may leen lépp luy neexal làmb ay ca wa xamoon nañu ko ndax gis naa Moussa Dioum mu ànd ak ay rakkam uuf leen gis naa maam les coach bi nga xam ne bis bi am na fu mu ko toll xale bi di Oni Ndiaye gis naa ko fi mu ngi ci jotaay bi mu wane ne saa su ne rek xale yi ñu ngi wane ay jéego ci lamb tey nag ñu ngi ci open press ki nga xamante ne mooy Ibou Ndiaye Obali ndaysaan waa rek DKR production organisé ko ma nga noonu di ànd ak waa Parcelles Mbooloo ñu dégtal leen suuf bi kaay oh, waaw. ñu ngi taxaw ki nga xamante ne bu ñu nee parcelle mbooloo moom moo ko waral muy Moussa Dioum tey nga ngemb sa rak sa frère muy Ibou Obali mu jëm bis bu rëy le 25 juillet nan ngeen ko waajee yéen waa parcelle mbooloo. waaw balaa ñuy def dara dañuy sant yàlla julli ci yonent bi sant suñuy waay waajur di sant waa parcelle ba le 26 di sant sama mbokk Bawol Bawol yi ak waa Louga Maka Bragué di nuyu waa parcelle mbooloo ci encadrement yi ci yàlla na ko ci yàlla may ndam lu set wécc lu amul benn werante mu mel ni tey euh, fon na nga écrit ba xale yi tey bokk nañ ci relève làmb làmb am nañ ci ñoom yaakaar boo gisee Oninga gis euh, Obali gis yeneen champion yi nga xam ne bàyyi laat jëm ak kullim doo jum waaye dafa dul matal waaw ndeysaan mu doon ay xale yoo xamante ni ñëpp ay xale la ñu koy Rock Énergie ñoom Tafa Ndiaye ñoom mooy Boursin ñu koy jaale papaam fan fan yi passé dafa gaañu euh, Dame Suger booy yëpp ñoom ñëpp dañuy ñëw di jàpp si ak Bololaay Séeréer ñoom ñëpp ko doon jàppale ci contact yi di ko jàppale ci yëpp pour rien ñoom maama yaak képp ku fi teew rek sant naa la gërëm naa la surtout maam lee suñu coach ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax tàyyiwul mu ngi sonn ci affaire yi vraiment fi mu toll nii muy bëre xale bu mel ni Pape Yékini ñëpp xam nañ ne ndaanaan la ci bëre xeex waxi noppi ban préparation ngeen ko préparé la bu saa jub ndaanaan nga la waaw loolu moom defal nañ ko programme spécial ndax ku nekk xam na Pape Yékini ndaanaan la ndax gis nañ boo bëre mag rek ak ndax nit tamit bu lëg loo ko bañ bañ nangul ko mën a dawam ndaanaan la maa ngi moom bokk nañu entraînement ba taay vraiment mu ngi koo xam ne day joxe ci entraînement day dem ba jeex mais nag dafa dajeeg sama rak dajeeg sama xol gën a jege gën a yey moo tax daal maa ngi ñaanal Obou na ko yàlla suñu borom may ndam mais def nañ ci moom loo xamante ne ni le 25 bëgg naa buy nañ suñ ñëwee arène nationale bi ñu ñëw ci ak beneen i façon ñu ak booy Ndiaye ñoo ñëpp ci équipe te ñu ñuy seetaan tout le temps leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm salaam. jaajëf mais wuy ba mais sama digganteeg Malick Niang wax si Malick Niang nañ ma ko jox dafa bëgg a bàyyi bëre. non Malick Niang bu bàyyee bëre day briser sama rêve te sama rêve mooy bëreeg Malick Niang daan ko. ñebe laa jël Malick. ma ko joxee naa ko bëreloo ba mu mel ni palaatu yaa suuf tuuru ma doog koo daan. da avance tabaski moom maanaam xaru tabaskeem ci avance la koy jëndee te am na ci yéen. waaw na ma ci dimbali na ma ci dimbali na jël avance bi na jël avance bi ñu ko jëlee naa ba mu dee ah. Moussa Diouf waaw waaw Bouly nag dafa nekk rak spécialement mu mu fragmenté nëbbu si dara mu farag fragmenté te nëbbu si dara ku mel noonu ak euh, voilà risque yi mu siy jël yi nga xamante ne dañ ko si am ay noonu mu jël engagement wane ne man góor laa faral kooku bu ayee ma yëfu bopp laa koy def personnellement moo tax li ma doon def dama feebar nii sax ma damay ñëw taxawu ko may ko doole te dama koy jàppale bu baax a baax baax ma ne ci yëpp mbokk yi ñu fi indi daa dox ci combat bu mag boo xamante ne mu ngi dox ci diggante Ibou Ndiaye Obali ak Pape Yikini waa rek DKR production ñoo ko tëgg le 25 juillet fële ca arène nationale tey ci suba def nañ face to face ñoom ñaar Ibou Ndiaye wax na Pape Yikini tontu na Ibou Ndiaye nee na ko kër moo la téye sama avance bi nga koy jël ndax amuloon xaru tabaski nee na soo buggee sax yow mu may la xar li nga yaakaar ci bis ba bu arbitre bi sifflé dina la delloowaat ndànk parcelle gi nga jógee ndax dalaa xam ta xamoo waaw ginnaaw bi ma sante yàlla maa ngi jógu si yonent bi di sant suma ñaari waajur waaw maa ngi nuyu waa parcelle 1 ba 26 di nuyu suma waa koñ waa set waaw di nuyu suma grand Moussa Dioum suma kët su maam gees maa ngi koy nuyu bu baax waaw di nuyu suma waa écrit bu baax a baax ñoom Père Sagne dirigeant yëpp di nuyu suma waa koñ fii inte set waaw di nuyu waa koñ bi ñëpp man fi ngaa juddoo fi ngaa yaroo doomu parcelle laa man waaw maa ngi sant bu baax waa parcelle 1 ba 26 waaw maa ngi nuyu suma mbokk séeréer yi waaw doomu séeréer laa di nuyu suma mbokk yi yëpp ñëw fi teewal ma saaw sama gars yi yëpp dawakatu sareet yi dawakatu sareet yi 100 pour cent Ibou Ndiaye maa ngi di bëggee bu baax waaw ñii ngay gis ñii rek ngay gis dañoo jënd seen bogogu bopp ne bu jour ba dinañ génnee xaalis jënd ay billets ñoom ñëpp ñu dajaloo ñëw dooleel si Ibou Ndiaye supporté ko di nuyu suma nijaay suma di nuyu suma nijaay xam nga Abdou Waxal maa ngi koy nuyu bu baax waaw di nuyu waa waa daaka bi waa daaka bi maa ngi leen di béggee dem dama leen mayoon ay cant waaw waa daaka bi maa ngi leen di béggee waa daaka bi waaw waa daaka bi ñu ngi noonu maa ngi leen di béggee waaw euh, ci adversaire bi Pape Yekini lim la wax tey waaw Pape Yekini aw ma gu may wax ak moom moom bu gisee gi rek war na xam ne Ibou Ndiaye am na gu garaaw gu muy préparé jëflanteeg moom man si waxoy kii ngaa juddoo Moussa mii kii di nga nekk ak moom di xam ngay tiit da da nga fàtte Moussa Dioum ku Moussa jàpp du mën a la kii saa yi waxoom ngañ juddoo si ngañ yaroo moom bu yaakaaree xeex bu bés baa dina am nga ko bett nee naa ko amoo ak ma Ibou Ndiaye affaire xam kan nga am ak affaire doomu séeréer yi. nee na kañ kan nga am ak am benn wax bu mu wax mu wax wax bu garaaw wax boobu après combat bi dinaa ko wax ma ne ko ah comme nga wax mu ne ma waaw ma ne ko Mamadou Moussa Diop Mamadou Moussa Diop moom nga tudd u fago yo seereer oxe warma xetit Mamadou Moussa Diop a ne'e Mamadou Moussa Diop naga na Pape Yekini waaw nee naa ko amoog man affaire séeréer yi nga am affaire te bu suur ba di nga xam ne yëpp dëgg nga waa Joof yow yëpp maa ngi di woo si combat waaw maa ngi sant nag maa ngi gërëm di sant suma yaay yaay la si man muy mbayang wum bi nga xam su ma ko waxee sama open press su ma waxee rek xool daf may ne coupé amul programme su ma ko nee fay mu ne ma bu ma fay moog moomoo ngom dafa jóge ba gànjaay di nuyu ma booy waa Dose élément Dose yëpp maa ngeen di gërëm waaw sama doom day Bibo Mbaye maa ngi koy sant di ko gërëm. sa diggante ak Pape Yékini que yéen ñaar ñëpp xam nañ ni ay mbërëntaan ngeen. mbëru simple nga. moom mbëru simple la. mais xeex est-ce que yéen ñaar seen combat dina am xeex. waa déggoo ma xanaa. parce que juddoo yow ku nekk yow ku nekk si kanamu Moussa Dioum mii Modou Papa Sow suñu grand yi nekk fii nii yëpp. mais way ragal B52 man B52 daa mun a daan sa sama entraîneur bi dañoo ragal lool. waaw waaw waaw waaw. ah. ndaanaan la amul problème nangu naa ko ndaanaan xam nga Pape Yékini xam naa ko bu baax gis naa ko bu bëreeg ñoom Reug Reug ñaata combat nga seetaan ak calme xanaa xamoo sama gars yi sax ñoo ma forcé ne ma seetaan ay combat am mais wax dëgg yàgg kuy daan neuf personnes si benn guddi yuy jëw yàmb xëju si Pape Yékini waay eh kon da ngaa wax Pape Yékini benn ñaata lay def te yow Sam ñaata ngay def je fais partir des cinq meilleurs lutteurs de lutte simple du Sénégal boobu neex mais lui il parle très bien le français ah. waaw. parce que j'ai fait dama ànd ak xel bu dagg. barki Serigne Touba Mbacke. mais ci wàll mobilisation parce que xam nañ ni combat yi ñu taftal yëpp ci combat yi ay combat yu mag lañ. waaw wàllu mobilisation Obeuly fan nga ci toll ak supporters yi rendez-vous kañ nga leen di jox rendez-vous ak ban heure la ñu war a départ. waaw waagu mobilisation fii si parcelle waagu mobilisation fii si parcelle gars yi ñu ngi may jàppale bu baax a baax ku si mel ni monsieur le maire Go Faye Go fay mu ngi jàpp si combat bi xam nga euh, ak raqam DGMF ñoom ñëpp dinañ jàpp si combat yi waanaam ngi war a génne waa parcelle wow Go ak xam nga famille dinañ si dinañ dinañ si taxaw ak waa mouvement réaction waaw bu nekkee côté dëkk ba région de Fatick bu commencé région de Fatick yëpp ministre Matar Ba ministre Matar Ba day jàpp si combat bi direct docteur Cheikh Kanté day jàpp si combat bi waaw. directeur monument de la renaissance day jàpp si kombaa bi man ay kilifa ñoo nekk suma ginnaaw. ngay wax say supporters. ci sensibiliser leen ci sensibiliser leen ci non violence bi parce que arène nationale saa su ne bu ñu daanee mbër nga gis ñu yàq siège yi yàq alal yoo xamante ni ñun waa làmb ñoo ko moom lan ngay wax say supporters ak ñi nga xamante ni dañuy dund di kontaan di bég ci Obeuli. ñun kenn xameewuñu violence xam nga tax doomu séeréer yi xamuñu ay violence waa parcelle xamuñu violence. séeréer xamul violence parce que ñoom xam nañ ne gaynde gañ ko sekkal ñoom samay mbokk xam nañ ne gaynde gañ ko sekkal te bu jour ba incha allah rabi séeréer yi dafa am nga xamante ne da manqué woon yow xoolal VIP yi nekk si kaw a kaw yëpp yëpp yëpp yëpp gisoo si benn champion séeréer gisoo si benn champion séeréer ñi ñuy fay ay ñi am ay avance su 4 trois 3 yëpp kon ñun séeréer dafa jot ñu wone suñu bopp képp kuy doomu séeréer na taxaw jàppale ma maa ngi nuyu monsieur le maire Youssou ak monsieur le maire euh, Abdou Karim Sène maa ngi koy nuyu monsieur le maire Fimela di si Diome ak monsieur le maire Joal ñoom jënd nañ billet yi war a jóge Diofior kaar yi day déparé si mairie bi ay bus la ma monsieur le maire may xam nga mook doomam bi nekk France maam waage ak soxnaam su ma fan si kër bi Diofior maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñoom Jogo Baas maa ngi nuyu ñëpp suma grand yëpp ñoom ministre ñoom Kodion ñoom Kangu Jangar di nuyu sumay mbokk waa Diofior waa Sicap maa leen di woo si combat bi ñoom ñëpp. ñu bàyyi la nga sant gërëm woo ñi nga xamante ne ñoo lay jàppale rendez-vous le cinq juillet arène nationale. du nuyu du nuyu. wuyul Boucar. Pape Yékini dama ko jël mu solo ay gants ñi def interview sax mu ne du sumi gants yi lan ngay wax ci loolu parce que nee na bëgg a xeex xeex bañ a xeex xeex. waaw ah. mais Pape Yékini moom xam nga mooy problème Boucar man xam nga gars yi ragal ceeb dafa gaaw gis nga li ma dagoon sama combat bii passé man instant bii moo tax ñi may liggéeyee yëpp si waa Gambu dama nga ne bu ngeen def dara jaru ko quoi bu dee man ak Pape Yékini kese kese kese bu ñu tëjoon si néeg saa bu ñu daajee néeg bi ma fekk ma si kawam mais xam naa ne waxuma la waxuma la magu waxuma la paawu joof yoor yi rek ak séeréer de mais barki Serigne Touba xale yu jigéenu joof yoor rek xëjuñu si Pape Yékini xale yu jigéenu joof yoor rek bu ñu jugee si Pape Yékini Pape Yékini bu suuru combat ba du ñëw na rel rek dafa xamul kim ko sekkal moo tax nay ndeelu di wax rek booy jotu dong koy napp rek napp nii pour mu ko mu tiib ñëw bàyyi ko. yow man maa ngi si ginnaaw waa daaka bi waa daaka bi dama leen yab interset a dëkk parce que fii laa juddoo yaroo fi man du ma ragal. paa bi gi nii dafa dafa xamul ki ko seegal rek maa ngi nuyu sumay mbokk di woo waa Diofior di woo waa koñ bi di sant bu baax suma grand Moussa Dioum waaw am na koo xamante ne nag maa ngi koy sant muy ya Yaxya Diop Yékini suma papa ga grand champion Yaxya Diop Yékini maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. waaw non loolu du problème Yaxya Joob Yékini sama papa ga maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm daf may jàpp ga di sonn si man waaw awi naan dam taxam comme euh, ginnaaw maa ngi nuyu sumay mbokk séeréer sama waa écrit gars yi may jàpp si contact yi ñoom jibi seen ondinga xam nga gisoo gis nga waarok énergie ñu ngi nii gaa yëpp a ñëw xam nga Babou saar sama raq xam nga maa ngi ñaanoo Dut Sané xam nga ñun ñëpp ñoo far waaw kon maa ngi sant waa koñ bi baax di leen gërëm di leen jégalu nag fan yii nii biru bi bëri na bu trop si koñ bi xam nga cant yi fi amoon dem si guddi ak tey open press beeg yooyu mais xam nga mënu ñàkk quoi bés bi moo ko laaj rek maa ngi jégalu waa koñ rendez-vous rendez-vous le 25 juillet incha allahu rabi arène maa ngi woo ñëpp mafia bi yëpp dinañ teew te paa bi gi dina xam ne nga dëgg la